ñëpp xam nañ ne salon de l'agriculture de Paris du salon yi gën a rëy ci àdduna bi ndax bien sûr am na sial moo ko gën a rëy mais salon de l'agriculture de Paris dafa nekk histoire dafa nekk euh, dynamique dafa nekk euh, lu lu traditionnel loo xam ni mooy unique salon de l'agri salon commercial bu président de la République di ñëw di ubbi et préparer attendre déglu ay critiques kon Sénégal participation bi mu ci def participation bu am solo la li ci gën a neex mooy euh, ministre yi yow ak élevage ak pêche ak yëpp ngeen jël bokk ak chambre de commerce yi ak institution publique yi fi ñëw yëpp muy Sonacos COSEC ak ñëpp daal taxawaay bi rafet na taxawaay ambassadeur bi tamit rafet na ci secteur privé bi ñi ngi góor góorgóorlu waaye comme li ngeen di wax rek lu fas daw daw làpp li baax na ci dama am loo xam ne tànk réglé wuñ ko ñun duñ ci gaaw a génn mooy secteur privé ak état wax même objectif même d'abord ci état euh, li état def ci ay structure d'appui pour jàppale bari na mais ñoom dañu war a wax même direction ñun tamit secteur privé liñ taxawal ci ay organisation ci ay mbir bari na tant que bokkuñ wax même ñu jëm lu ñu bari bari doole def dara day jafe et je pense que lu mel ne salon yi ñëpp toog fi waroon na nekk waroon na nekk te nekk na ko sax loo xam ne nii lu ñu war a régler la wala ci Sénégal ndax ñëpp gis nañ Covid bi mu amee tout le monde pensait que dañ daan wax il ne sera plus comme avant ñoo doon defar suñuy masque ñoo doon defar suñuy gel ñu commencé woon di dugg beneen air de industrialisation waaye nag dafa mel ni dañ ko xaw fàtte kon nag ñu ngi lay ñaan euh, euh, xam naa ne lu ci ëpp sax ci ñun la ci secteur privé la te nangu nañ ko ndax état bi moom yaakaar naa bu ñu àndee rek ndimbal li dana gën a yomb